jàpp sax nag saisir pour lu toll ak 34 34 paquets de préservatifs ak 10 téléphones portables ñaari iPhone di xamle ni rek téléphone portable nak yi ni mel ñoom ñee nak di gérante bi moo ko doon utiliser ak ñi mu daan jël pour rek ñu liggéey nag ci li nga xam ni moo di wàllu euh, prostitution moom nag di ndaw si ab amoon foofee ci cité Capex jot fa ut nag ab visite police nag amal na fa descente ndiki démb li waral descente du ab du lenn lu dul ab notable bu dëkk ci quartier Boulé moo daal di signalé li ni mel ba tax na nag moom mee di gérante bi jot nañ ko yóbbu police ak ñaari prostituée yu ñu fa jotoon ci ay client ñu fa jot fekk nag jot nañ leen laaj li nga xam ne moo di seen pièce d'identité ba ñenn ñi sax jot nañ koo génne mais si des ñu ci loxol yoon yoon nag dina ubbi ab enquête te fi na ni nag luñ koy toppee lu lenn proxénétisme ak l'incitation euh, à la débauche di fatali rek nak ki leen di gardien bi moom tamit arrêté nañ ko di ko toppee li nga xam ni moo di complice xibaar yi day dal di ñu dem foofee ca xelkom xelkom nag ku ko dégg xel day dem ci suñu soppe ba kookee di sëñ Saliou Mbacké moom nag waaye tamit xelkom ku ko dégg xel dina dem ci milliardaire bi di Cheikh Amar ginnaaw nag ba muy mënul moomee di Cheikh Amar Sarr da daan dem di amal ab liggéey bu yaatu foofee ca xelkom ren nag ginnaaw bu mu jógee ci ab accident ci bu yàggul dara moom mee di Cheikh Amar nag gis nañ ko foofee ca xelkom moom nag di ab fervent taalibe moo tax mu moo waral teewaayam foofee ca xelkom ndax ku ko xool rek dina xam ne li ne di wérgu yaramam may ko ko waaye nag gëm ak bëgg bu mu bëgg Serigne wu Mbacke moo ko yóbbu fule jot na nag di yëkkati ay kàddu foofee ca xelkom rek muy mën a nag mëne mën a dina jéem taxaw foofee ca xelkom xibaar yi day daal di wéy ñu jéem xus tuuti ci domaine politique dem jëli député buñ tabb bu yàggul di député bu yees bi di Pape Djibril Fall ginnaaw ab sortie bu mu amaloon rek di waxal ak ndawu Sénégal pour ñu gën a gërgëlu ci seen jàng ndax ñi la di ñu woowee ay artiste ak ay acteur defuñu lu nekk lu dul di leen di vendre ay rêve maanaam di leen di jaay loo xamante ni amul que vie bi ñuy wane ci théâtre yeeg ci série yi du moment loo xamante ni moom la ñuy dund ba tax na nag ñenn ci ay artiste rek jot nañoo génn rek ngir jàkkaarloo ki nga xam ne moo di Pape Djibril Fall moo mel ni rek ki la di Pape Djibril Fall day ternir image artiste fekk na ni moom nag di Pape Djibril Fall dafa wax rek pour ñi nga xam ni moo dem ndawu Sénégal ñu dem jàngi ngir rek ëllëgu ndaw yi am ab lu ñuy wax moo di USAID TV di groupe des médias nag yëngu na ginnaaw nag ki nga xam ni moo di Sida Thion ak kii di ñoo doon a xulloo en direct ci benn émission ginnaaw nag ba Sida Thioute invité ki nga xam ni moo di Ameth Thiou ñoom ñaar nag jot ñoo déggoo ci ay kàddu ba tax nag ay wax jot a jëpp foofee ci plateau bu ñu doon amal direct ñu desandiwaat tuuti ci langue politique dem ba nga xam ni foofee moo di assemblée nationale jëli fa député bi di Abass Sall Abass Sall gën koo xamal ci député Pastef moom nag ginnaaw ab émission buñ ko invité woon foofee soo sud FM jot na yëkkati ay kàttu jëmale ko ci ki nga xam ni moo di kin fi nekkoon njiitu assemblée nationale di Moustapha Niass moom nag di Abbas Fall li mu wax du leen lu dul rek kii di Moustapha Niass ni mu doon jiite assemblée bi dafa doyoon waa trop rax si doole nag yokku na ci ni budget bi nga xam ni moom lañ ko doon jox pour mu utiliser ko foofee ci biir assemblée daf ko doon def ay njuuj njaaj ci suuf rax si doole sax ne am na yenn sax si ay auto yu député yi yi moom moom mii di Moustapha Niass jël ko distribué ko ki nga xam ni moo di ay mbokkam tax na nag moom mii di Abass Fall nee na lu tawut xam ne dafa yàggul te nag kii di Moustapha Niass bu ñu ko toppee rek nañ gis ay njuuj njaaj yu mu doon amal foofee ca biir Assemblée nationale ci jamono jooju muy nekk direct président de l'Assemblée nationale bu Sénégal